Sénégal le VSD au plaisir de vous retrouver sur Sénégal 7 TV seen programme bi nga xamante ni moom mooy démarrer week-end bi ñoo amati mbégte day toog fii ginnaaw bañ leen nuyoo ba noppi euh, nuyu aussi ñi nga xamante ni tout le temps ñoom ñoo ñuy jàppale ci liggéey ba mu yemba savoir la régie tey nañu am mbégte di fi recevoir ki nga xamante ni mooy suñu invité du jour di euh, Mourtala Seck donc di coordonnateur euh, collectif ñoo lànk ñoo bañ mais aussi coordonnateur de la génération force citoyenne des valeurs GFC tey moom la ñu fas yéene sekkal waxtaan ak jëmale ko ci li nga xamante ni moom moo di actualité bi dina ci bokk li nga xamante yàgg nañ ko xeex ci seen combat mu ñeel euh, facture yi cherté vie bi euh, ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo di askan bi mais aussi dinañ àttu jëmale ko ci li nga xamante ni moo gën a li nga xamante ni am na foofee ci Ziguinchor ñeel annulation euh, radiation Ousmane Sonko ci liste électorale yi gouvernement bu yees bi aussi am ci ni moom moo di gis-gisam mais aussi présidentielle bi ñu dëgmal ak taxawaay bi nga xamante ñoom yàgg nañ leen gis ñu yàgg ko am ci élection bu jot ngir rek ñu mën a am des élections libres transparentes fii ci mim réew bu Sénégal mais laataa ñuy gën a xóot ci li nga moom moo di suñu waxtaan dañuy bàyyi Mourtala mu nuyoo ak yéen au plaisir Mourtala de te recevoir tey sur ce plateau di la bàyyi nga nuyoo. bon asalaamaaleykum d'abord Penda yow maa ngi lay nuyu di la siyaar di sant ci invitation bi du gulet parce que kër gi moom sunu kër la bu tey yàgg na a ay différents mais yow moom yàlla dafa wax dëgg yàlla plateau yi ñu seq tamit jaar yoon sénégalais yi di ko euh, solliciter dafa bari euh, donc maa ngi sant ñi ma fekk ñëpp di sant aussi ñi ñuy suivre d'ici et d'ailleurs bon di ñaan yàlla lépp lu ñu fi wax yàlla doon njariñu Sénégal yàlla ngi Sénégal gis boppam euh, ba ñu mën koo jëriñoo. ñu ngi sant di gërëm wasalaam. am na solo xaw nga xaw nga nag raataay tuuti ci plateau yi. Mhm. ak ci li nga xamante ni moom moo di espace bi loolu moo waral sax tey ñu wëraal la ba gis la teg la fii ci plateau bi. Mhm. ngir waxtaanee ci li nga xamante ni moo gën a fës ci actualité bi maa ngi koy junjoo euh, léegi ci sama biir si sama euh, ndoxteel mu ñeel situation Euh, cib tënk euh, Mourtalla sa gis-gis bu yaatu ci par rapport ak euh, réew mi. bon d'abord yaa nga wax lu am solo léegi suñu du retrait sax mais dañ ne bu ñëpp di wax te ku ne li muy wax bruit bi ëpp wax dëgg bi. dañuy préférer retirer wu pour xool fan la dëgg feete ñu mën ko wax te àdduna tamit noonu la baaxoo bu ñëpp di wax te wax ji à un moment donné ñëpp xamoon nañ ni ci Sénégal wax ji moo ëppoon dëgg wax lu dul dëgg gi dafa ëppoon dëgg gi wax safaan dafa ëppoon dëgg wax luy taal réew dafa ëppoon dëgg bu ñu yeggee foofu nag te ñun ñu xam ne wax dëgg yàlla bëgg ñoo bokk ci loolu am nañ droit retiré ne woon ne woon ñu nag ñëpp doon waxee noonu mais dafa ëppoon ba mënoo woon a xàmmee luy dëgg ak lan mooy réalité moo taxoon ñu jël suñu recule pour mën a xool ci fan la ñu war a mën a jaar parce que gëm nañ ñi dëgg rek moom moo mën a jëriñ askanu Sénégal mm. donc en grosso modo bu ñu demee defee loolu presque cinq à mois gis nañ ni moment bi opportun na parce que yu bari dafa leer ci sunu kanam pour ñu ñëw nekkalaat Sénégal donc nekkal googu li nga ma ci laaj moom moo am solo situation bi Sénégal nekk ku ko gis xam ni man damay jàpp ni impasse sax laa ko jàppee parce que impasse weesuwul euh, situation la boo xamante ni ay dënn yu tàng souvent da koy gis un situation la boo xamante ni lii décision bi joxe démb Ziguinchor day wane ni suñu justice ñun day day des fois dafay nekk à deux vitesses situation la boo xamante ni dañoo gis aussi profité ci yenn opposants yi profité yàkkamti ngir ñu bañ a bokk ci ay élection loolu dañ koo gis te jàpp nañ ni loolu li muy indi ci réew moom mooy xët-xët ak yàq loolu nag buñ ko gisee ci suñu réew toll fii ñun li ñu war en tant que ñu bokk ci société civile mooy taxaw comme nañ ko daan defee dox ci wax ci ba li war nekk nekk ngir Sénégal mën a nekkaat ci jàmm. mais justement. contexte bi dafa dëpp ak yow mi ñu recevoir ci plateau parce que da ngeen yàgg xeex li nga xamante ni moo ñeel injustice mhm. euh, rawatina justice à deux vitesses nga xamante ni da ngeen ko yàgg décrier est-ce que donc cette affaire avec Ousmane Sonko tey bu ñu gisee tribunal bu Ziguinchor tey ci avec le juge Sabassi depuis hier gis nga sax euh, ni ko nit ñi di partager ci li nga xamante ni moom moo di réseaux sociaux yi comme pour dire que euh, juge yi nga xamante ñoo intègre ba ñu ngi fi ci gis-gisu ñenn ñi parce que jàpp nañ ñi peut-être ñi dem at si ay mbir Ousmane Sonko time moom loolee moo ko waral yow sa gis-gis. bon man sama gis-gis man damay damay damay damay revenir un peu en arrière sax bu fàttalikoo ci l'affaire Mame Mbaye Niang ci première décision yi <coughs> dañoo gisoon ni ay juge wala ay ñu nekk ci wàllum yoon ñu am fulla ñi gi ci biir yoon non mënoo jël ci benn secteur nga ne ñëpp bon. ñu diiñ ñu am fulla ñu am fayda ñoo xamante ni mille milliards wala alal mënul leen a détourner ci ligne bi ñu nekk muy li ñu dëgg dem nag juge bi li mu décidé ñun liñ ci gëm mooy dëgg la parce que li tax mu doon dëgg dañoo jàpp ni ku toll noonu bu buñ ko joxee lijaasa bu toll noonu demandé ko mbir mu xool ba setantal daan nit kii kat dañ ko war a delloowaat pour mu mën a nekkaat ci list électorale yi man gëm naa ne loolu dañ ko war a def un dañ dañ ko ci félicité ci courage bi mu am pour wax dëgg mais deux aussi dañ ko war a appliquer parce que xam la moo tax ñu war ko appliquer dafa am benn sénégalais boo xamante nii vraiment duma wax tëj bi ko tëj sax mais dama gëm ni acharnement dafa am parce que acharnement ci naka lañ ko mën a jàngatee tëj nañ doomu aadama bi même pas cinq jours nee nañ euh, tas nañ parti bi même pas quelques jours nee nañ dañuy koy dindi ci ay liste électorale est-ce que li ñu li ñu teg yëpp no comme nee nañ yoon day jël temps est-ce que jël nañ temps bi mu war a jël est-ce que sa càmbar nañ li ñu war a càmbar ci ay mbiru Sonko précipitation non am na ci ba ci génn ci liste électorale yi lii wane na ko juge bi décision bi mu joxe nii wane na ko te wax dëgg yàlla décision la boo xamante ni ñun dañuy xaar malgré nee nañ am nañ ay waa état bi def ay appel man je pense que li gën mooy ñu delloowaat ko ci liste électorale yi mais pour l'instant bu ñu demee nag ba ñuy war a ci ay affaire bokk ak wala affaire ñàkk ak bokk ak lu mu mënti doon bu boobaa ñuy décider décider mais pour l'instant comme conseil constitutionnel mais cause dit la vérité la yeggaguñ ci conseil constitutionnel lan moo fi ñor ba ñu bëgg a jël benn nit ñi rek patam patamee ko tëj man waxuma ay waxu tëj wa sax mais nee na ñoo dañoo tas parti wala nee na ñoo dañ koy rajee ci liste électorale yi te ñun ñi gis ñu am na ay nit yu fi amoon ay cas ba ñu tollee fii ñoom ci way politique dañ leen a jox fichier bi. mel ni comme Kaawu Karim Wade. waaw ku mel ni Kaawu Karim Wade ku mel kon donc je pense que loolu bu amee munta yomb ñu jële fi làq doom dóor doom et état bu Sénégal dafay nekk pour euh, euh, pour tollale Sénégalais yi. pour tollale parce que moom transcendé na opposition transcendé na koo xamante ni tey dafa war a jàpp ni kii ki daf ko war a remplacer man dama gën ni moom dafa war a jàpp liy dëgg moom moo gën parce que dëgg moo mën a indi jàmm fii ak dëgg amul jàmm du am kon nag le cas Sonko ñun dañoo gis ni lii ci juge bi wax dañoo gëm ni dañ ko war a appliquer dañ ko war a delloowaat ci liste électorale yi moom Ousmane Sonko parce que fi ko waxee fa lañ war a waxee Ousmane Kayor Ziguinchor càmbar na ko ba ne dañ ko ci war a delloowaat man je pense que mooy dëgg dañ ko ci war a ci suma xel bu gàtt léegi nag am maa nag lu luñ ci nar mooy waral Sénégal pëccoxoo ba mu nekkoon mën na ci delluwaat. parce que gis nañu déjà Ziguinchor euh, ci veillu procès bi gis nga xaw nañu. non mais si non mais si comme pour dire que ni duñu nangu li nga xam. non mais si non mais xam nga parce que xam nga lan moo tax. bu dee ci suñu réew dafa am dafa bu dee suñu réew dafa am benn justice ñu ne justice bi ñun ñëpp moom lañ yaakaar man ma bokk ci ñi gën a respecter justice bu Sénégal man personnellement parce que justice bu ñu ko waxee police daf ci nekk gendarmerie daf ci nekk euh, suñu armée bi daf ci nekk ma gëm ne sama armee mooy nekk ci frontière bi pour man ma mën a tëdd nelaw ma respecter leen jox leen cër ñooy nekk guddi muy taw muy naaj man bokkuma ci euh, woy activiste wala ku mënti doon koo xam da ngay ŋàññ ñooñu man du def loolu parce que ñooñu xam naa ne bu ma amee jàmm ba mën a dox di ñëw def émission ñoom ñoo ma ko permettre su ma amee problème man stabilité bi am ci dëkk bi su ma nit ñëwee tooñ ma mënu ma ko faj damay daw ma làqatu ci police ma yëgal ko ni dafa am ku ma tooñ mu régleel ma ko kon ñooñu man dama leen respecté ñuy saytu sama réew di saytu sama dëkk mais ñoo ñu aussi su ma demee ma gis ci wàllu justice ma gis ci loo xamante ni tey li dëppoowul ak yoon qu'on se la vérité li tax dëkk yi respecter justice parce que xam nañ ni justice bu jongee jéngee moo mën a taal am réew te justice bi li liñ koy gis ci jéng dafa bari qu'on se dit la vérité l'affaire Ousmane Sonko li ci xew dafa bari ñu demee ba mu nekk ci biir prison sax ju juge bu bokk ci justice daan ne leen dañ koo war a dugalaat ci list électorale yi man je pense que loolu yoon la dañ ko war a def yenn yi day duróog sax xeen man damaa jàpp ni hmm. yenn yi day duróog xeen ak acharnement te te may fàttali li may wax dafa am preuve am na ñu ñu fi teg ñoo xamante nii liñ teg Sonko lañ ko teg mais ba heure jox leen wala ba heure euh, ne leen dem leen defi par dañ leen koo jox ñu dem defi ko. en fait problème bi foofu nag mooy. Euh, ci kaawu Sonko ndax mënees nañ koo méngale quelque part ak ñeneen yi vu que ni moom euh, sa à dire état de contumace bi moo posé problème bu ñu fekk see ba tey li nga xamante ne moo di explication yi ñu professeur Ismaïla Madior Fall bi fi nekkoon euh, jur bi nekk wàllum justice baaxee woon ci explication que ni par exemple moom état de contumace déjà lu ni mel mooy pose problème ci li nga xamante ni moo di éligibilité est-ce que dans ce cas là tamit quelque part du justifier li nga xamante ni moo xew tout récemment DGE bañ bañ ko jox li nga xamante ni moo modifié. mais xam nga man boobu ba tey boo ma waxaguma ci bi Ousmane Ismaïla Madior Fall di wax parce que yorul dossier bi moom ministre de la justice la dafa bokk ci ñu yor dossier bi pàcc ci ñu yor dossier bi bokk ci justice war a joxe dogal te amul benn dogal bu ñu mës joxe ci Ousmane Sonko te ñu appliqué ko auparavant amul dogal bu ñu joxee ci jàpp ba tëj ba ci def yóbbul ko lii ci raje ko ci tas ba amul dogal bu ci joxe te gaaw ñu justice gaaw def la mu war a def dañu waxante dëgg te yàlla rek tax ca ña bokk ca ñooñu ci justice moom moo jël dogal comme nañ dogalee woon nañ ko raje nañ tas nañ def lii nañ def lii ñu gaaw appliquer ko parce que dañuy jàpp ne ah yenn yi daa am ñu mu gën a arrangé ba buñ koy appliquer kenn du leen ko wax ñooñu ña bokk ci ñoom ci justice la am ku jël yoon jox ko habilité mu war a tranché moom mu tranché ne lii dëgg mooy nañ ko delloo ci liste électorale yi man waxuma waxu Ismaïla Madior Fall partisan buy wax ci politique man kooku ay waxam. du ma ko mé non attends non attends am na solo ab partisan buy wax explication yi mu joxe am na solo. ab partisan buy xam nga de la justice. xam nga ab partisan buy wax ci ab partisan buy wax ci wàllum parti ci côté partisan am. man wax jooju mënu ma ko méngaleeg juge boo xamante ni dañ koo jox décidé dossier ne ko Ismaïla décidé wul yow yaay décidé. mais juge bi waaw non attends waaw mais attends Ismaïla mënut décidé ci place kooku. oui kon man bu ma méngalee yi ñu doon def ay décisions yi ñu doon teg ci kaw Ousmane Sonko mu doon ay décisions yoo xamante ni ñëpp ko daan dégg ñu jàllale ko mu jàll ku bokk ci ñoom aussi tamit ñëw jël décision. man dama gëm ni décision boobu dafa war a mel ni comme décision yee dañ war a appliquer comme ni ñu yàkkamtee ba appliquer yee. mais ndax appliquer décision boobu aussi dina yomb Mourtalla parce que depuis démb gis am na ay coow yu am déjà ci biir procès bi sax moo war a yëf yi gën a gudd euh, pëcc xoo jotoon na fa am quelque ba sax ay forces de défense et taxaw li ci buntu tribunal ba gis nga un agent de l'État bu taxaw wax ni juge bi duñ ko bàyyi mu juger parce que ñoom nee nañu li juge bi dafa am des liens de parenté ak ki nga xamante ni moom mooy. premier adjoint euh, bu euh, mairie bi foofee ci ci ci ci xam ne Ousmane Sonko moom moo ko jiite comme pour dire que ni mhm. peut-être ñenn ki ñoom xaaroon nañ bi lépp décision mu nekk en faveur de Ousmane Sonko euh, quelque part je veux dire que c'est contesté par non mais amul benn décision bu jël ci àdduna te du am ñenn ñu taxaw contesté ko mi ngi mel ni nga ne règle bu amul exception ci àddina amut. mais bii dafa am ñoo xamante dafa am xam dañ ko teg ci cadre farandoo. attends kay ma expliqué la non xam nga dafa am dafa am lu ñuy wax communication politique man du ma dugg ci communication politique Ousmane Sonko chaque jour nga gis ñu teg ko benn affaire sax. ay moom mbokkam am noo xamante ni comportement boobu lañ ciy am wala waa wa ña ña muy ña muy xëccoon am ci comportement loolu wooy politique la yàgg nañ déggante politique bu nekk di xëcc ci booram mais man li ma xam man te gëm ko mooy li ki nga xam moo habilité pour joxe kooku li mu décidé man loolu laa mën a gëm te loolu pour l'instant yi wax dëgg yàlla nag dafa leer te leer googu man li ma gëm ngi mooy indi jàmm encore une fois may waxaat ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor wàllu woo parce que dëkk bi dafa génn ci loo xamante ni ñëw ci benn phase bu xaw a stable stabilité boobu buñ ko yàq justice mu neex la mu naqari la bu tegoo sa kaw rek appliquer mu tegu sa kaw on se dit la vérité Ousmane loo ko mënti waxal jàpp nañ ko ndeysaan tëj nañ ko mooy suñu frère aussi Ousmane suñu frère la ñun li ko li ko dal nii bo ñun ñu bokk ci ñi mu gën a naqari ñun personnellement man dama koy wax beneen bi ci topp ñu jël ko tas par terre boobu ba tey gisuñu benn affaire boo xamante ni jug na ni mu war a jógee tey bu ñu ñëwaatee ca ña def loolu muy justice ñu ne leen ndax Ousmane dañ koo war a génn ci liste électorale di sis ne non dañ koo dañ ko cee war a bàyyi waaye ngal la waaye nag lii dëgg mooy ñu dugalaat ko ci liste électorale yi loolu moom mooy yoon leneen la des nag ñu xaal lan la ñuy euh, avenir bi di dicté ñun ñu mën koo def mais pour lii moom man je pense que loolu moo doon yoon que ni il compte quand même introduire un euh, recours euh, fii lay ci cour suprême maanaam yëf dafa nar a ñëwaat rek fi nga xamante ni moom moo di Dakar ñu gën koo càmba euh, dans ce cas là cette décision démb ci tribunal ba n'est pas encore définitive vu que ni ñoom ànduñu ci bileeb dogal ak dañ ko fas yéene attaqué ak am nañ 10 jours pour attaquer quand même cette décision mel ni kon jeexagul. mais xam nga dañ naan temps au justice du temps lu dul justice man je pense que ay appel ak ay yu demee et eh, ñoom buñ ko bëggee def am nañ ci droit mais pour l'instant li ki décidé décidé nañ ko téye. pour l'instant loolu moom moo fi am. mais c'est ça loolu non delluwaat foofee. mais c'est que ngir ñu mën a tàmbale parrainage. c'est parce que loolu mooy dëgg parce que ñoom décision bu ñu leen génneel duñu xaar dañuy dem defi ko appliquer ko bu leen arranger xaaruñu A xaaruñu B. kon tey bu juge benn juge ci juge yooyu di dogal bu dogalee war nañ ko mën a appliquer xam nga yii mooy waral xool yu tàng yii mooy waral mer yii mooy waral nit ñi wala jeunes yi di def des fois loo xamante ni tey buñ koy def duñ ko tey parce que da ngay gis ci yoo xamante ni seen réew ci wàllum yoon nga xam ne lii mooy yoon moom nga dénk sa bopp yoon bii lu mu la digal di ko def waaye yoon boobu des fois mu am yu ci xew ba dina naqari ba muy jul ay émeute dëkk dëkk yi tàq yëpp ay affaire de justice moo ko tàkk te Sénégal nag wax dëgg yàlla war nañu mën a dépasser phase bi ñu nekk même bu dee kii dafa def benn décision boo xam ne arrangé wu la mais li ñu teg Pastef fa gën a métti foofu fi ne nii li leen teg tegaguñ ko parti politique man mën naa ne fii ci Sénégal qu'on se dit la vérité dañu waxante dëgg rek te yàlla tax man bokkuma Pastef bokkuma ci fenn barki alquranu karim amoo ku ma ci militaire transcendé naa loolu man mais dama gëm ne teg bi tey liñ leen teg ci métti ci bopp bi Pastef di Pastef ba tey gisaguma ñu teg ko parti politique ci Sénégal qu'on se dit la vérité kon donc bu ñëwee ba fii tey ñu ne ah kii kat mooy seen jiit Ousmane ko dañ ko war a doolee mbiram lii dëgg mooy ñu delloo ko ko comme ñoom bu ñu leen ñoom nguur gi bu ñu leen joxee décision bu leen arrangé nañ cay gaawee pour def ko fii noonu lañ war a gaayee bu naa fekk amul pour defar ko jëmm ji di Ousmane Sonko parce que yoon moo ko may. moom du moom mais lu yoon dogale te dañ ko war a def. d'accord te yoon nekk euh, ngi dégg yaa ngi insister sur le fait que ni ay ni muy gaawee tout le temps euh, mosuñu gis mbir mu gaawee ni mu mel comme pour dire quoi est-ce que da nga jàpp ni kon wax dëgg na yàlla Ousmane Sonko dara euh, dérange à un tel point que ni bëgguñu doon patam patamee ko ko de côté. Ah, mu nekk li nga xamante ni moom yàgg na ko dénoncer. mais benn fànn kenn du ko jeex procédure yu bëri yuñ jaarale Ousmane Sonko du yoon qu'on se dit la vérité donc wax man man ça ne date pas d'aujourd'hui ba 2021 bañ koy jël war koo yóbbu yooyu yëpp du woon yoon amul yoon amu ci woon parce am na député boo koy jël na loo war a dindi ci moom c'est-à-dire am na ay procédures yoo xamante ni boo koy xool ci jëmmu Ousmane Sonko nañ ko doon toppee nañ bi mu ko corriger këram mais yooyu yëpp du yoon mais natt la yooyu ay natt la yoo xam dañ koo teg nañ waxante dëgg te du yoon amul kuñ ko teg fii ci Sénégal amul man gisaguma kuñ ko teg ci ab ku euh, chefu parti wala ku jiite parti wala koo mënti doon e man ma ma gëm ni tey gis nga dañoo xamante dëgg muy muy muy parti politique yi fi nekk yëpp Ousmane Sonko la yàlla may loo xamante ni yàlla moo ko mayoon quoi moo ko may ba tey parce que ni mu mel ci xolu doomu aadama man raar na bi ma nekkee Sénégal ba tey gisaguma ab acteur politique boo xamante ni mel nga noonu ci ay xolu nit doomu aadama il faut qu'on se dise la vérité dañuy wax dëgg te yàlla rek tax loolu bu amee ci doomu aadama jàkkaarloog état boo xamante ni ñun moom demoon na bëgg bëggam ni kii faagaagal ma rek la bëgg loolu bu ñu ñëwee ba teg ci suñu bët mais dañ koy wax mais natt yi ñu teg Ousmane Sonko ci ni ñu koy jàppee ci euh, ni ñu koy euh, toj bi ñu fi toj veeram euh, veeru otom ni buñ ñu ko risé këram yenn yu bari natt yu ñu ko teg ci ay moom ci ay waa famille bëgg génn julli jéeg yooyu yëpp am na fi yàggul donc loolu bu amee kay li ngay mën a jàpp rek mooy kii non seulement état bi man damaa jàpp ni da koo ragal man loolu laa gëm man parce que à un moment donné état moo jox doole yenn doole Ousmane Sonko ah ah un moment donné. mais la moo tax état non mais parce que état moo jël Sonko teg ko foo xamante nii man je pense que am na nu doon doxalee du demee noonu. est-ce que c'est parce que yi muy wax la nag. non mais xam nga xam nga tey xam nga tey. xam koy def comme ça. xam nga tey non mais Macky Sall moo fi di dama fi di voté ji bi mu nekk ministre de l'intérieur amul kii dugg par force ñu mu voté mais Macky Sall pour looy wax délogé. mais Macky Sall njëkk a wax dañuy dem déloger Abdoulaye Wade de dañ koy dégager non mais loolu Macky loolu ay waxu politique la doo ci jël benn nit nga bëgg koo jël jox ko maanaam toor lépp non non ak loo ko mën mënti waxal am na côté boo xamante ni way politique la day doxal yëfu politique am comme ni ko Macky Sall daan defee en 2012 qu'on se ku ci nekk nag ak sa forme qu'on se dit la vérité mais daal li gën a am solo mooy na acharnement am na ci kaw Ousmane Sonko bu baax a baax a baax ak loo ko mënti waxal. ne def na ko ay erreur man dama koy wax yàgg naa wax Ousmane def na erreur bi def man bokk naa ci ñu yàgg taxaw man di wax Ousmane def na erreur bii def na erreur bii il a fait des erreurs je suis parce que des fois mu wax ay wax yoo xamante ni man d' accord mais ci mais acharnement biñ ko tegal moom merci acharnement biñ ko tegal moom Ousmane Sonko wax dëgg wax dëgg yàlla mosuñu koo teg acharnement politicien fii Sénégal. d'accord voilà. Euh, donc à rappeler que vous suivez toujours votre euh, émission euh, de ce vendredi euh, di li nga xamante ni moo di Sénégal VSD donc muy bi nga xam ne dañu koy dégtal ci week bi ak suñu ay invités yi nga xam ne dañuy am mbégte di leen fi recevoir ngir mën ak ñoom ci li nga xamante ni moo gën a fës ci actualité bi beneen question d'actualité bi nga xamante ni aussi Mourtala suñu invité bëgg nañ ci am sa sa mu ñeel. taxawal euh, gouvernement bu yees bi euh, gis nga ni Sénégal ci fan yee ñu weesu ay toog nañ ay fan yoo nga xamante ni amuñu ab gouvernement euh, ñenn ñi nag amoon surprise ba ñu déggee ni kii di Amadou Ba di candidat bi nga xamante ni moom la benn mbokk yaakaar tànn ngir mu représenté leen ci présidentielle bi moom day continuer wéyal ci li nga xamante ni moo di njiitalu gouvernement bi mais aussi ci gouvernement bu yees bi yow déjà ban gis-gis nga am ci 39 ministres yi ñenn ñi nag ñu ngi ñaawlu la fekkee que ni soxna yi moom bëriwuñu lool ci bileeb gouvernement ak aussi ñenn ñi tamit di rafetlu euh, dugg sib ñenn ñi ñu mel ni comme Thérèse Faye Lat Diop et bon man je pense que boo ma mayee benn entre balaa maa dugg ci loolu ma wax ci ab gouvernement Macky Sall bu mu teg même pas pour 4 mois ma wax ci suñu ay camarades yoo xam dañ leen a incarcéré tëj leen très sincèrement man je pense que en tant que le coordonnateur du collectif Ñoo Lank mais doon le coordonnateur du GFCV Génération Force Citoyenne des Valeurs bi ma boolee ci biir Ñoo Lank man damay wax ci ñu yor wàllu woowu kaso yi dafa fees te am na ñoo xamante ni tey boo demee ci tur tribunaux yi nekk ci Sénégal maanaam na fa mbooloo mi di mel ëpp na à la fin sax ñeneen ci ci yi ñu leen di dugal doo ko comprendre pur de mille et quelques loolu dafa bari te mu am ñoo xam dañ leen a jàpp nii rek te mu leer na ma ne état bi war na leen a mën a bàyyi. man damay wax fii ma toog nii ñun dinaa jug sol suñu daal lépp loo xamante ni war nañ ko ci def parce que kaso yi mënta feesee nii ñu war a am nu ñu mën a bàyyi ñu bàyyi leen pour au moins climat de stabilité am tuuti ci dëkk bi. donc loolu mënuma ko woon wax sans pour autant ma jàll parce que suñu camarade bu mel ni Pape Abdoulaye Touré suñu camarade bu mel ni Mohamed Gueye bu ñoo lànk nga xamante ni moom ñoo lànk la bokk. Abdou Karim Gueye xurum xaq mais Abdou Karim Gueye dafa yàgg ci kaso bi qu'on se dit la vérité. ñu ngi naan état de santé demeewul. non te état de santé demeewul noonu mais nañ libéré Abdou Karim Gueye mais Cheikh Omar Diagne bi nga xamante ni biñ koy tëj du tey mën naa sax cité nit dof ak pas mal dooru Thierno Sall bi nga xamante ni Ousmane saar Sarr bu nitu dëgg des valeurs ñooñu ñëpp di suñu ay camarades yoo xamante ni tey tëj yi ñu leen tëj ñun jàpp nañ ni dëppwut ak yoon qu'on se dit la vérité loolu loolu ñun suñu gëm-gëm la et Mohamed Gueye bi nga xamante ni dafa bokk ñun dañ ko ñun dañoo jékki yàgg rek ñu arrêté ko te xamuñu arrestation yooyu leer yi ci war a am amu ci te ñi ko def des centaines et des de jeunes la man maa ngi wax fii ci Sénégal set di wax ni ñun fas yéene nañ sol suñu dàll fépp fu ñu war a dem dinañu fa dem ngir waxtaan ak ñi ñu war a waxtaanal il faut ñu libérer ñenn ñi nga xamante bu ñu mënee libérer ñëpp nañ libérer ñëpp bu dee dafa am ñu def nag ba ñu avéré ñi ñu woon ñi ñii dañoo def parce que dëkk bi mënuñu koo def bàyyi noonu ku lu neex waaye def loolu mun a nekk ku def nañ la nañ la nañ nañ la teg yoon mais ñi nga xamante ne ñoo jàpp ni ba tey jusqu'à preuve du contraire gisaguñ lu tax mais nañ leen libéré pour dëkk bi am climat de de stabilité un peu. kon daal encore une fois loolu ñu ngi balaa balaa di di dem euh, mu réglé quand même nga xamante ni. amee noo amee noo si loolu en tant que membre de la société civile ñun kuñ ci war a toogal dinañ ci toog ak yow parce que loolu tension lay créé ci Sénégal. te dafa am tension yàgg nañu gis tey dafa mel ni fi ngeen tax ah, non non non non non ci mës a kaas dox nañ ci wax nañ ci ba mbir ma ca war a am am ci. parce que je veux dire je veux dire euh, li ñeel incarcération di yow kese. Mhm. gis nañ plateforme F24 gis nañ société civile ñëpp nga ñun bokkuñu F24. oui ñun ñooy seul ñooy seul mouvement bu bokkul biir F24. parce que dañ ci gisul suñu bopp. parce que mënuñu nekk Sénégal chaque jour mouvement juddu bu weesoo deux ñu tas ko créé waat beneen te même même membre yooyu ñooy nekkaat fee naa fekk la ñun gëmuñu loolu. gëmuñu loolu amuñu benn problème nag ak F24 amuñu benn problème ak beneen mouvement. mais man li ma gëm booy xool mouvement yi fi nekkoon aar li ñu bokk collectif ñoo lànk yeneen mouvement yi fi nekk même personne yi ñooy tas bii ñëwaat bii waaw ah, léegi loolu pour lan non man non dama gëm ni nag damaa gëm ni xeexal Sénégal bi naa fekk daf ci bëri bari na ñoo xamante ni pour xeexal Sénégal dañ ci ut buzz bari na ñoo xamante ni pour xeexal Sénégal ñoom bu ñu positionné wul wala ñu feeñ mais loolu yàq suñu activisme bi activiste bi loolu moom moo ko yàq cause di la vérité loolu moom moo fi am même mouvement yi ñi ko ñi booy xool chaque jour ñi doon nekk fii ñoom ñooy nekk fii parce que ñii dañuy jàpp ni comme fii gisatuñ fi suñu bopp nañu retiré wu dem dem fële fa la ñuy gën a ëppee buzz la réalité jiitalatuñ Sénégal xam nga lañ leen jiital seen bës ñoom ak seen bopp kon lan moo tax ñuy xeex réellement. c'est dommage moo tax nag ñun bi F24 taxawee ñu xool ni lii ñun même chose la dañoo wax dëgg yàlla amuñu kenn problème mais bokkuñu. d'accord bokkuñu F24 bokkuñu mais lan la jur lan la jur tey li mu jur mooy ñëpp ne patt ñëpp ne tekk ñuy jàpp ay nim ci jur parce que booloo wuñu li ñu war a booloo affaire de bës moom moo fi am et puis ñiy tuddee seen bopp ay la société civile mu njaay Cissé consort il faut que état bi xoolaat seen bopp ci ñooñu parce que ñooñu duñ société civile. Ah. qu'on dit la vérité non dafa am société civile organique bu fi nekk boo xamante ni ñoom ñooy dem sur le terrain di wax askan mais xam nga xam nga bu mel ni ñoom bu dee ñoom Mondiaye bu dee ñoom Mondiaye Cissé daa am ñu fi nekkal ci société civile yi loolu moom mooy dëgg ñoom daa am ñu ñuy waxal ak ñu dul waxal loolu moom mooy dëgg te ñun dañoo bokk dañoo doon organisation bu crédible tellement du ma toog lu yàgg te jotuma lettre état pour inviter ma wala pour inviter collectif bi ñoo lànk parce que du man maa am importance état dafa dem ba reconnaître loolu état dafa dem ba reconnaître nii ah nii ci li ñuy dox ni ci fulla ak fayda ak jom ak fit lañ ko boole mais boo may tuddal mel ni moom mu jaay seen bokk nañ ci ñu yàq euh, société civile bi boo may tuddal ñoom seen concert googu ay bon bëgguma tudd tur voilà quoi. ku waaw non Alioune xam nga mag man du ma wax ci mag mais man li ma gëm daal mooy pour l'instant état bi war naa xoolaat ci ñan lay doxal. parce que ñoo xamante ni ñoo xamante ni heure ba heure la ñuy génn te la ñuy génn askan wi duñ du leen duñu mës a leeral askan bi mais xam nga charte charte charte de paix bi ñu fi doon euh, bi ñu fi doon teg temps yële ba Ousmane Sonko ne du signé. Mm. charte de paix boobu ñoo lànk moo ko bindoon. ah bon mais ñoo lànk bi mu ko bindee xam la la wax. te ne nag jàmm mënta am fii ak newul du ma def troisième mandat boobu lii lépp xewul ñoom ñoom ñu ne non question boobu duñ ko ci boole. ah bon. ci lañ génnee woon ñun collectif ñoo lànk retiré woon ne neen jàmm mënta am fii ak soo euh, kii Macky Sall newul du def troisième mandat boobu bariwul woon ñu ñemee wax loolu mais société civile bu mel noonu muy ay kilifa ñooñu ñëpp on a du problème avec personne. mais il faut réew bu tollee ci benn moment bi il faut ñu xool naka lañ ko defaree te waxante dëgg te pourtant ginnaaw loolu après gis nañu ni euh, combat boobu ñoom moom ñoom moom la ñu porté ah non ba ci plateforme bi non mais xam nga xam nga xam nga tey F24 lan la apporté lan la def non nee ma lii la def sa à dire danga may wax quoi mais xeex nañu ci ni moo di troisième non lan la xeex jàpp nañu tey ji Macky Sall bu renoncé ci non Macky Sall bu renoncé ci troisième mandat bu dee ñoom dañ jàpp ne ñoom la noo juum nañ gis nga xeex bi sénégalais yi xeex juin bii passé xeex bi sénégalais yi xeex 2021 xeex bi ñun ñu xeex yow nga xoox ko keneen xeex ko buñ bëggee jël xeex boobu yëpp dajaleel ko ci ñoom noo juum nañ non non non non non Macky Sall bu leen faale woon xanaa tey marché yi ñu demandé yëpp ñu rejeté ko ñu nangul leen ci benn amul marché bu ñu demandé ñu nangul leen ko te coow di jib bant du dab on se dit la vérité nañ waxante dëgg mais loolu bu doon ña ñëpp ñoom ñoo ànd te dëgg rek tax fulla tax jom tax da ngay gis F24 membre yooyu askan mi ne lañ bokk bu ñuy def conférence de presse waaye yow askan génn bàyyi leen ñoom appare ñoom ñu def cest à yoo xamante ni day mën a may ki nga jàkkaarloo doole pour mu faagaagal la. kon division au sein de au au sein de de li nga xamante ni moom moo di société civile bi. foofee ngay waxee non mais dëgg la. parce que li tax mu doon dëgg. oui yàlla camarade euh, yaa nga koy demande sax yaa nga ma koy demandé sànq avant émission bi. Euh, mi ngi bokkoon ci F24. Euh, que le camarade de Y'en a la. kan si Aliou Sané. waaw yaa ma ko doon yaa ma ko doon wax sànq. mais ak arrestation ah, am nga ci peut-être. du mais ni nga ko jàppee ni ñu jàppee Aliou Sané qui est suñu waaye la bokk nañ ñoo lànk jiite na ko lu yàgg man nekk ci ginnaawam nangu ànd xeex pour Sénégal. Mm. ñu dem ba man ma ñëw moom mu puus mais peut-être jikko yu bokkul moom mu ne day génn. à fait. c'est ça quoi. moom mu génn pour dem créer ji leen mais teewul. bépp xeex bu ñu war a bokk dañ koy mëne ensemble ça dama lay wax yu sew yi nekk ci biir. tey bu ñu demee ba arrestation yi am nii te kenn yëngatuwul. c'est parce que dafa am lu ko semé. la ko semé nag mooy dellusiwaat ci kaw ñenn ñi. et loolu bu doon lu ñu dëggal la suñu bopp kenn bëggul buzz kenn bëggul wax lii wala wax lee sànq maa ngi wax détenu politique yi fàtte naa Bentaleb Sow Bentaleb Sow FRAPP la bokk. dañ ko arrêté te arrestation bi ñu ko arrêté ñun waa ñoo lànk dañ koy naqarlu et puis dinañ sol suñ daal lépp ñu ci war a def incha allahu rabbi dinañ ko dinañ ko def mais problème mu Sénégal actuellement bu ñu demee bañ jàpp ku mel ne Abdou Karim Gueye Cheikh Omar Diagne ak ñooñu te déggoo lu yëngatu nga xam ne yaa problème. oui yow yaa fa dugg. mais bëgg naa nga gën a xóotal foofu tuuti laataa nga koy romb noonu muy ki nga xamante ni moom moo di Aliou Sané. Mhm. laataa ñuy dellusiwaat ci sama laaju sànq bi mu ñeel euh, confe euh, remaniement bi ak gouvernement bu yees bi nga xamante ni teg na ko teg nañ ko ci sa ci sa gis-gis euh, Aliou Sané yow yaa ko junj sànq yéen da ngeen bokk combat yu bëri yu nga xamante ni ngeen ko yàgg partagé ku xoolaat li nga xamante ni moom moo di histoire wu ñoo lànk di nga ci seen ki nga xamante ni moom moo di Aliou Sané ngeen bokk li ngeen yàgg xeex mhm. tey naka nga gisee li nga xamante ni moom moo di teg loxo gi ñu ko teg loxo bu weesoo li nga xamante ni waaye Y'en a marre depuis le jour J wane nañ ko muy seen seen naqar ci biir biir. waaw mais naqarlu dama am naqar parce que warul woon foofu mbir yi bu doxoon ni mu war a doxee gëm naa ne xeex bi dina gën a tàng comme nam daan tàngee ci jamonoy ñoo lànk comme bañ fi tëjee ñenn ñi ni ñu booloo woon ànd parce que mbooloo mooy doole mais kuy tas mbooloo da ngaa xamul parce que day dem ba day dem ba këppu sa kaw. Aliou Sané sa notre camarade jàmm rek laa seq ak moom diriger na ñoo lànk heure bi ñu ko war a diriger jóge fi man ma ñëw diriger ko boobu ba tay man je suis le coordonnateur de ñoo lànk li ñu seq jàmm la mais man li ma gëm mooy mhm. état bu Sénégal pas état bi justice bi bu ñu demee ba joxe wax ñaari wax man damaa jàpp ni tooñ am na foofu mhm. parce que niñ ko jàppee ku seetlu image yi xam ni foofu lu ñu mën a jàppee nit amu fa mhm. loolu moom mooy dëgg mais léegi lan moo war mën a tax ñun activistes yi ñu ñuy jàpp te coow te coow parce que booloo ba ñu war a booloo muy booloo dëgg la ñu booloowul parce que am na ñoo xamante ni ñu ngi ci dañuy dox à cause de diviser pour mieux régner loolu bu fan yii di ñëw dinaa ci indi ay leeral yu gën a leer parce que ñun duñ nangu Sénégal ay naafeq ñëw taxaw naan ay dañuy dañ koy bëgg a jiiteeg dañuy bëgg a diriger bu ñu demee ba tollu ci képp koo xamante ni ñun xam nañ ni yow mii que ce soit du pouvoir et de l'opposition en woo askan wi parce que da nga doon wax ci kaw di wax ci suuf ci bi ñuy nekk ñun di xeexal Sénégal dinañ taxaw ñu dénoncé ko. ci 200 candidats yi. ci non bien sûr ah mais bien sûr. 200 yi bari nañ ah mais bien sûr. donc le camarade Aliou Sané d' abord dama koy ñaanal yàlla génne ko fu mu nekk parce que suñu camarade la jàmm lañ seq ah. bokk nañ mbir bokk nañ ko ma leeralaat mu jiite ma ma nangu topp ci ginnaawam attaque lu teg presque bi ñu demee man bañ def ensemble général ñu jiital ma bon peut xaw ma nu ma ko mën a tuddee li gënoon rafet mooy toog comme ni ma toogee woon mais mu désister génn bàyyi dem <laughs> bon bi mu bàyyee damit keroog la ñoo lànk gën a dox wax dëgg yàlla mais amuñu benn problème mais yu mel noonu souvent bu ñu koy seetlu ci mouvement yi tas bi taxawal bee tas bii taxawal bee te même personne yi ñoom ñoo fay nekk damaa gëm ni activiste bu ñu dajale woon ci benn plateforme nii ñuy def activiste yi le camarade Abdou Karim Gueye Cheikh Omar Diagne ñii nekk ci biir ñëpp wax dëgg yàlla duñ fa nekkee nii. mais ñun ñoo néewal suñu bopp doole. d'accord pour en revenir à ma question euh, par rapport ak gouvernement bi bu yees bi sa sa gis-gis ñu yees ci dugg si ak ñi nga xamante ni changé nañu ci ay postes euh, indi ñeneen teg. bon man je pense que état bi dafa nekk ci logique am opposition bi nekk ci logique am malgré état bi nag moon jël le dessus fi mu toll nii pour dire la vérité. parce que Macky Sall bu ñu demee ba toll fii mu defar ay gouvernement politique rek moom moo tax mu koy def et ko tere parce que politique la fi toogee mais ñun li ñuy ñor ñun ñi nga xamante ni ñooy askan bi mm. souvent dañuy jël seen ay décision politique ba fàtte calcul politique ba fàtte askanu Sénégal mm. te askan boobu man jàpp naa ni mooy li ëpp doole décision politique ñun li leen di wax mooy élection yi ñu jëm du ma paate duma ma demba élection équilibrée lañ bëgg équilibrée lañ bëgg bu transparent boo xamante ni Sénégal moo ci am ndam bugguñu ci benn jafe-jafe boo xamante ni ay calcul politique moom moo koy indi parce que mën naa taalam réew. est-ce que lu ñu mel njott nga ko ci ki nga xamante ni moo am carte membre par carte membre parti wala coalition. kooku man jàpp naa ne lépp lu ko par membre ba carte membre lépp lu ko parti ba def loo wala coalition ba defloo ko am na abilité def ko mu ngi mel ni député bu mouvement fal rek lu ko mouvement ba fal day fàtte askan bi ko faloon. day fàtte askan bi ko fal too parti ba la mu ko wax rek lay def te parti ba falu ko askan moo ko fal dafa jaar ci buntu parti bi rek pour falu loolu moom moo am man su ma sañoon tey ku neutre ñu fal ko muy doon ministre de l' intérieur pour organiser élection élection yi jub gëmaguma ni mi ngi ci commencé am Antoine Diome neutre et pourtant ñu bëri ànduñu woon ci mu Antoine nu mu mënee neutre non je veux si gouvernement bi la bokk ah, certes mais gisuñu ko officiellement mu bokk benn mais neutralité weesuwul bokk société civile ñu jël la nga organiser élection yi mun na nekk pourquoi chaque jour politiciens yi respecte wuñu Sénégalais yi depuis ay décennies même problème la ñuy amaat te problème yooyu ñooy ñëwaat. lu koy tax mais metti mu talaa c'est-à-dire lu ni mel même bu ñu ko defoo sax diggante ko woon jox kii. non moom non dama lay expliquer te problème ne élection yi dañ a ko war a jox ku neutre te est-ce na ko ku moom man daal li ma gëm ko ci Sénégal mooy damay waxaat sama avis fii ci Sénégal école française bi wala du ma ne université wala dama ne depuis soixante mille neuf cent soixante ba tey ñi jaay ay intellectuel ñi jàppee ne ñoom ñooy intellectuel mhm. te dëkk bi du ma ne dara baaxu fi waaye ni war a doxee doxu ko mhm. mais gëm naa war nañoo changer askan bi war naa xoolaat ban modèle la war a jox askanam parce que koo xamante nii mooy politicien moom nga ko jàppee bu élection ñëwee mu nax la mhm. fexe ba falu bu demee def li ko neex yow kan nga war a jox sa sa sa sa réew ëllëg. d'accord ak kan nga war a jox sa bopp. bëggoon naa ñu sori ci ci point boobu par rapport ak gouvernement bi ak lépp lu nga xamante ni euh, euh, am na ca euh, waaye dama bëgg ñu dem rapidement parce que tuuti muy signaler que ni temps bi li ci des bëritul ma am sa gis-gis ci li nga xamante ni combat la bu nga xamante ni fan yëpp gis naa une consoeur di ko porté muy Oumy Ndour bu RTS donc gis nga pétition yi nga xamante ni jot na ko am. ak askan bi yëpp ci ñeel euh, facture courant yi ni mu chéré euh, woyofal bi gis nga temps mu ngi bëgg yóbbu yóbbu nit ñi euh, fu kenn xamul aussi gis nga fan yee passé situation bi amoon ak benn facture bu toll ci 3 millions et quelques presque millions ba sax finalement Senelec daal di ci def ab communiqué pour expliquer borom après finalement ñu ne ko 150 ngay fay te 150 mille sax moom nee na dafa metti ci moom ndax ay 70 rek et la daan fay mhm. donc lu ni mel moo di cherté dund bi Euh, factures yi ak yu ni mel euh, loolee ban jàngan nga ci am. incha allah kooku di def loolu journaliste boobu nekk RTS dama koy féliciter d'abord parce que euh, acte citoyen la def loolu képp koy xeex mbir dañoo xam ne askan wi la ñor dañ lay féliciter te luñ ko ci mën a jàppale dinañ ko ci jàppale parce que askan wi ne ci jàmm rek moo ñu ñor mais incha allah ñu ngi waxtaan dans les jours à ñun ñi nga xamante ni ñun la nit ñi xam ci wàllum xeex dund bu cher ak courant bu cher xeex nag day toll foo xamante ni da demee sa xel parce que ay chiffres dafa baax. ci mbir mbir mi lu ko waral lan moo tax mu undu heure bii mu ñëw ak fan lañ war a mën a jaar pour indi suñu ay solution balaa yàgg suñu waxtaan bu ñu waxtaanee ba noppi incha allah ñu ngi dinañ jébbal lettre ministre bi yor wàllu waaye dinañ jébbal lettre directeur u bu ko aajowoo dinañ dem toog ak ñoom waxtaan xool mbir mi lan la parce que mbir boo koy xool da ngay xam sa mbëxtal ba lan la ba noppi incha allahu rabbi yeexul parce que dañ doon dajale yenn am na ñu ci jot a ay facture incha allahu rabi ñun ñi nga xam ne te dañoo déggee dañoo dañoo jotee fu ne message ci Sénégal waaye ñu ngi wax sénégalais yi nañ dalal seen xel balaa yàgg tala dinañ jub parce que loolu suñu xeexu bokk la waaye sénégalais ñu gis comme kooku nekk RTS ak keneen ak keneen boo ñëwul sax ñun dinañ ñëw ci yow ngir ànd ak xeex parce sotti ji la ak bi amul culture peut di topp yéen ni ko jaral souvent sax nga teg ko benn injustice mu ne garaaw naa fay rek mhm. donc ñoom peut ñeen ci askan si yéen nañ ko yaakaar non a ngeen mun a ngeen mun a yeggal incha allahu rabbi dara maa wax ak sénégalais yëpp ñi nga xamante ni tey dund mi ngi metti ci ñoom waaye ñi nga xamante ni gën a ñor sax mooy courant bi cher na ba jéggi doro parce que tuddatul woyofal diisal la tudd et puis ndox bi aussi comme ni nga ko waxee may profité di wax wax dëgg yàlla bees de yi am ci dëkk bi ci yenn lieux yi waxuma la sax courant bu cher man Touba ga ma nekkoon bees de tension bu metti moom moo fa am Touba Janatu Maxwa ba ay nit ñu bëri seen ay matériel yàqu te askan wi kenn du wax ña ko yor ña nga sene rek xaw ma un certain wadd la tudd da nga koy woo doo ko jot et loolu manque de respect total la quoi man sama gëm-gëm loolu manque de respect la bu la askan tegee fenn pour ay seen jafe-jafe buñ la soxlaa buñ la woowee da nga leen a war a wuyu kon may interpeller le directeur bu Sénélec di ko wax ne ko askan wi pour l'instant kontaanu ci yéen parce que coupure yi ci yenn côté yi bari na mhm. baisse de tension yi bari na mhm. oyofal tuddutul oyofal donc man je pense que bu buñ ci waxtaanee ñun suñu suñu suñu waxtaan mhm. dinañ jug fépp fu ñu war a def ak lépp lu ñu war a def ñu ngi koy wax sénégalais yi incha allahu rabbi dinañ koy def te dinañ leen ci woo ngir lii di injustice ñu teg ñu ko ci wàllu courant bi mën a arrêté incha allahu rabbi loolu am na solo euh, benn mbir aussi bi nga xamante ni euh, bëgg naa nga nga indi ci sa wax ñu collectif bi fan la toll ci pourquoi parce que dañuy teg commission yi yow yaa ngi fa woon mhm. mu ñeel wàllu loyer bi gis nañ depuis lors tegoon nañu ay numéro ver ak yu ni mel mais ba tey bailleurs yi ñenn ñi fa ñu taxaw fan lañ taxaw ba tey location bi lañ wéy di métti si ñenn ñi ba tey caution bi tamit ñenn ñi lañ leen fay la ñuy fay ba man jàpp naa ne dama ko waxoon keroog ci émission ma ne continuité mooy problème mu sénégalais yi le collectif ñoo lànk ngala gàcce ngalaama li mu waroon a def la def dem na ci commission yu war a def joxe fa ay proposition mais bi mu joxee proposition ba pare lan lañ mën toog déglu toog déglu parce que nag askan falu ñu ñun ñun yoruñu état yoruñu nguur li ñu mën rek askan bi ñu woowee ci mbir muy doxal as mbir mbiru askan bi ñu ñëw toog waxtaan ceeg ñoom jox leen suñu xalaat ngir loolu mën a dox mais heure décision bu jotee le ministre bi commerce ànd ak ñi mu war ñi mu àndal bon jël seen i décision ci wàllu commerce bi ci wàllu def seen ay seen ay mbir ci bi ci seen i affaire Abdou Karim Fofana le ministre bi commerce ñun bi ñu demee ba xam ne ah duñ ne amuñu lu ñu ci wax de waaye dañ naan ñun gàcce ngaalaama la waroon wax fa ñu waroon a toog adduna bi mu ñuy seetaan lépp lu ñu war a def def nañ ko lépp lu ñu war a wax wax nañ ko mais bu dee entre le ministre du commerce la ak ñi nekk ci ministère bi bu dee dafa am ay ay yeneen commission yoo xam ne dafa amaat au sein du ministère du commerce ay conseil national de la consommation yooyu yëpp tey bu doon yoon mooy bu doon askanu Sénégal rek moo leen ñor ubbi daf ci waroon a am ba ñi ci war a dugg ñëpp dugg ci mais dañoo gis ñoom dañoo sélectionné seen i nit. Hmm. te kenn defoo ko dul Abdou foofu nag man sama sama gëm-gëm la parce que ñun bi ñuy nekk ci ci euh, ci euh, ci ci commission yu mag yi. dañoo tënkoon biir bu ñu demee ba pare ci commission yu mag yi boobu commission yu mag yi jeex na ñu dem ba ci li nga xamante ni au niveau du ministère di commerce la ñu doon jël ay ay vocataire wala ay nit yoo xamante ni ay volontaire lañ le collectif ñoo lànk bon xamuñu ragal xamuñu ni mu demee postulé wu ay ay nitam postulé wu pour xeexal Sénégal mais dañoo fexe ba jàppale ngir ut seeni nit bopp loolu lay wan Sénégal du gaaw a dox fii ak politique bii mi ngi fi mais le ministre du commerce bu doon nit la avec directeur du commerce bi bi waroon nañu xam ni ñun defar moo ñu tax a jóg ñëwuñu pour ñu naqari parce que ñun buñ jugoon pour dox ci wala pour wax ci c'était pour defaral Sénégal c'était pour xeexal Sénégal mais nuñ jekkee-jekk ba ci yàgg ñoom ñu def li ñuy def ñu dekk ba ci yàgg gis ay numéro vert ci biti jekk ba ci yàgg gis ay volontaire jekk te yëguñu tinuñu donc je pense que loolu nekkul lu doxal askan te nit sax bu ko ragal xam nga nit bu ko ragal nit koo xam day wax dëgg da lay dimbali yow day gis lu dul yoon mu ne la lii du yoon ngeen waxtaanee ko loolu daal lañ ci jot a toll mais am maa nag bañ toogee fañ war a toog wax nañ lañ war a wax bind lañ lañ war a bind Sénégalais yëpp dégg nañ ko jébbal a jébbal nañ leen di jébbal en tout cas askan bi ñu ngi jànkoonte ah, bokk ngeen ci ñu yaakaar lool euh, Mourtala nag vraiment euh, amoon nañ mbégte lool si ak yow waxtaan waxtu bi jeex na tàkk mais ñu bàyyi la nga tàggatoo le mot de tàggatoo bi nag bëgg naa nga boole waale ci GFC GFC moom mooy lan. Euh, non GFCV la génération force citoyenne des kooku ñi ma xam ñëpp xamee nañ ma ko moom laa duggee ci biir. ñoo lànk avant maa jël waaw xam nga nag ñoo lànk moom comme ni ma leen ko waxee rek dafa dem ba sama tur sax. Mourtala mm-hmm. ñoo lànk lañ may woowee. dafa doon euh, sama bébé doon sama lépp parce que ñoo lànk fu ma du ma ne fu ma yegg nii moom fa yeggale mais ci at yi am na fu ma yeggale man it am na lu ma ci góorgóorlu ba mu yegg si fii mais dama gëm ni àdduna aussi euh, bu dem dem di dem nga man damaa bëgg a ëmbul pour joxe keneen mu jiite. ah déet yi man nag dégg naa for naa ci wéy wéy ni gars yi nee nañ bëgguñu nga dem yow bëgg nga joxe leen ngay. waaw non mais waa ñoo lang ci boo xam ñoo bëggul nga dem. non non peut-être am na ci. am na ci mais man li ma gëm man mooy damaa gëm ni rek boo yoree mbir ay at. ak keneen ku mu mënti doon mooy mi ngi mel ni président rek mu neex ba nga damaa bëgg man ñu jox keneen mu mu jiite. parce que loolu moom mooy doxal askan. bu ko defee man ma doon membre simple man ma doon membre simple toppaat ci ginnaaw di xeex. mais pour bëgg a jiite mbir éternellement man gëwuma loolu man dama gëm ni ñoo lànk am na fu ma yeggale lu ma bëgg sama xol la munuma ko bàyyi ni ma mel daf ma daf ciy joué milieu médiatique ak Sénégal ak ni ma ci mel ci Sénégal ñoo lànk daf ci joué man kenn gënumaa bëgg ñoo lànk mais damaa bëgg ñoo lànk gën a dox ñu gis keneen yor flambeau bi loolu moom mooy yoon ngir nit bu jiitee rek muy neex ngay dem dama bëgg ñeneen ñëw ñun ñu topp seen ginnaaw dooleel ba pare doon ay bayfaalu ñoo lànk parce que ñun lu ñu am ci organisation ñoo lànk moo ñu ko gënal. loolu am na solo wallaahi lazim parce que lépp defal nañu ko. beneen bi ci topp mooy GFCV moom laa duggee ci ñoo lànk la génération force citoyenne des et c' très normal donc lii daal en grosso pour nit ñi di am habileté mbir mi suuf doo doo doo doo. fan yee ci ginnaaw nag ñu ngi gisoon ci ay vidéo yu viraloon ci internet bi nga am xam ñu xawoon la moom ni ko gars woon nag ni mu demee sax c' est diamétralement opposé loolu dama naan accident de vie lu war a am la am na mais li ci nit ñi di wax yëpp xam naa dañuy xër rek di wax yàlla jàll na na ko ci jàmm ak salaam am na lu ci justice yor dama bëgg a bàyyi bon peut-être comme justice mooy doxal aw ma pour wax ci euh, en daal man maa ngi ñaanal Sénégal yëpp am jàmm mm. waaye ci kaw jàmm jooju maa ngi ñaanaat suñu frère yi nekk ci biir foofu laay tëjee. parce que am na ñu doon wax ni politiciens yi ngay déranger biir Géejawaay peut-être ñenn ci ñoom ñoo yónnee ay nit ñu attaqué. non yooyu yooyu yooyu yëpp ay waxu nit ñu xër la rek man loolu laa jàpp man jàpp naan benn politicien amul xol boobu man gëwuma loolu. mais li ma li ma bëgg a tëjee mooy suñu camarades yi nekk ci biir prison yi ma ci jiital Abdou Karim Gueye Cheikh Omar Diagne nit dof de ma part moi le coordonnateur dañoo lànk suñu frère Mohamed Gueye bu ñoo lànk Thierno Sall Ousmane Sarr Ben Taleb Sow ñi ci gën a ràññee nga xam ne ñoom ñëpp dañ leen arrêté ak ñeneen ñëpp milliers yi personnes yi ñu arrêté ñun ñi ngi demandé état bi mu jël ci ay taxawaay parce que prison yi métti na te ñi ñu war a bàyyi ñu bàyyi leen ñu ñibbi. géejewaay ñu nag ñu bàyyi. géejewaay nga jógee amee ay dara muy liggéey waaw déet. waaw <laughs> non loolu moom mënu ma ci prononcer. ah mais Guédiawaye nga dëkk très sincèrement mais Guédiawaye nga dëkk. rek ñu wax. suñu mais Guédiawaye nga dëkk mu ah, tax may ma yeggale ci sama frère yi ñu jàpp. sama ngir yàlla sama frère yooyu ñu ngi ñaan nañ leen bàyyi ñun nag ci fan yi lépp luñ ci war a def dañ sol suñu daal def ko. ngir ñu génne leen d'accord ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw mais ñàkkul beneen boo fi ñëwee tey di ñu baaxee sa gis-gis ci li nga xamante ni moo di bilan wu Ahmed Aidara eh, ngi lay remercier amoon mbégte lool ASD Mourtala Seck coordonnateur collectif ñoo lan coordonnateur aussi bu GFC euh, donc euh, moom la ñu amoon mbégte tey di fi waxtaan ak moom ci ci li nga xamante ni moo gën a fës ci actualité bi di ko remercier ci wuy si bu mu ci invitation bi di remercier aussi yéen ñi nga xamante ni tout le temps yéen safoo suñu ay programme di remercier la tout régie tuuti Massamba Ismaïla la rédaction de Sénégal 7 di leen jox dig dégee yeneen i plateau jërë